mbokk yi dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci mbiri professeur Moussa Seydi mi nga xamante ni benn waay moo ko bëggoon a agressé démb foofee ca armeel Yoff ginnaaw bi nga xamante ni teew na fa ngir assister ab enterement docteur bi di professeur Moussa Seydi te ràññeeku loolu ci wàllum fajum covid 19 gi fii ci réewum Sénégal démb yàlla ku dimbali waaye tey ji kon kenn dootul waxi waxam moom professeur Moussa Seydi démb ci boori di heures benn waay bu doon dawal ab scooter ca boori armeelu Yoff moo ko kar bëgg koo agressé bi nga xamante ni moo di l'observateur moom waa ji lu mu yàqut professeur Moussa Seydi da ka fàtte traité na ko laas nee na la maanaam raykatu nit la ci jamono jo xamante ni professeur Moussa Seydi mu ngi doon assister ab enterrement boo xamante ni ab xaritam bu génn àdduna ginnaaw bi nga xamante ni amal nañ enterrement bi ba pare ci la professeur Moussa Seydi daal di dugg ci otom boo xamante ni gaare woon na ko ci parking cimetière musulman yi nekk ca Yoff ca noonee la ko ginnaaw rek bi nga xamante ni kii di professeur Moussa Seydi wàccee na vitre otom ngir wax ak moom waa ji bi mu taxawee dafa ni ko salaamaaleykum professeur Seydi ni ko maaleykum salaam mu ni ko yow la professeur Seydi Moussa Seydi daal koy affirmer xamal ni moom la ginnaaw présentation bi nag waa ji nga xamante ni moo bëggoon agressé professeur Seydi laaj na ko lan moo tax ngeen daal di arrêté rek li nga xamante ni moo di rapatriement nit ñi faatu ci jàngoroy coronavirus te nekk ca biti réew ji nag ginnaaw question Seydi moo di loolu nga xamante ni def nañ ko mu di arrêté rapatriement ñi nga xamante ni faatu nañ ci coronavirus teguñu ko fenn ci yoon moom waa na ni la ci ginnaaw di yàq lu mel ni xamee ki nga xamante moo di professeur Moussa Seydi nee na Moussa Seydi fenkat la te waxuñu dëgg yépp Sénégal yi li dee ci jàngoroy coronavirus ëpp na lim bi nga xamante ni moom la ñuy xëy di joxe saa su ne ginnaaw waxi waa ji nag ki nga xamante ni moo di professeur Moussa Seydi tontuwu ko xanaa rek dafa def lu dul tal otom ngir ñibbi wàcce këram ca noonee nag nag la ko waaji dal di topp ak ay saaga yu metti harcèlement yi nga xamante ni waaji yëkkati na ko teg ko ci professeur Seydi ak saaga yu yooyu nag taxoon na ba professeur Seydi a amal benn accident de voiture bi nga xamante ni mu ngi moytu moom borom moto bi nga xamante ni mu ngi ko topp di saaga ginnaaw bi nga xamante ni nag waaji dem na professeur Seydi jël na téléphone am daal di relever li nga xamante ni moo di plaque d'immatriculation bu moto boobee ndax kat dafa jàpp ni kaaraangeem dañ ko menacé te noonee nag ci la daal di woo ministre de l'intérieur Nguy Ndiaye ngir ñu daal di topp waajoojee ba jàpp ko ngir teg ko ci yoon jërë ngeen jëf fi la ñuy yam ak yéen